Abdoulaye ibnu Mouhamad Abdoulaye ibnu Sayid ibnu Aktosan ci afaaqu séer yi ci saylu di xaaq di faaq ñuy woy Cheikh Ibrahima Niass ngi taxawoon ci xatam téeméer bi ak juróom-ñaar bi ci jusu ñaar bi motani wéy mu ne ko araaka loxoo sayfan wa ina e, e, kulli kumo kulli ina e, ah kuma xala qalbihi saani safiyun muhibu ara gis naa xa wa nuhu nikaal mahmouda ñi ngi lay sant yomat ba ñu ngi la koy sant ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant araak gis naa yow gis naa la say fan ngay jaasi la ko ñaal Mahmoud wa inna kilaykuma naka képp kenn ci ñaar xaalaa xal bi saani ca xolu keneen ka safin ku set la kenn ku ne sa xol xolu morom ba dafa set wecci muy bunta mu habbi bunta kuñ fopp la seen ñaari xol yi dañoo euh, bëggante xani an liman waafaaka xaalisan yetim wa tuubaa li ahlaamin laho fika marxabu xani an maa ngi ndokkal sax man mohamad abdulah koy ndottal liman koo xam ne waafaaka ñëwan na la xaalisanan yeti firim bi fekk ma nga set yéene ku la ñëw ak yéene ju set wécc yàlla y kese indi ko du aajoo tax mu ñëw seet si la du bëgg lu mu am dara yar rek wa texe li aalaami ñeel na ay kilifa lawum am nañu maraqaban xaram te fii ka ceew kilifa mooy ba léegi ku ràññee ko la mooy kilifa kilifa yu ràññee ki nga xam ne yow bëgg ñu ne day texe nañ qad intaqaboo min kulli xusrin li yasadoo a fafaaqoo wa faatoo bil uloomi wa aqsabo xadim tuqi boo tànn nañ leen ñoom sa gaay min kulli qutrin ci bépp côté lu tax li yasadoo pour ñu texe mën a texel ñeneen bàyyi tànn ay représentant ci côté bu nekk samp ay représentant yoo xam ne pour waa koo fa texe fafaa koo kawe nañ ñoom sa représentant yooyu wa faasoo gañe nañ bil uloomi ay xam-xam waax sabu naat nañ am naataange ñoom sa yàlla jox leen loolu cey wax dëgg wax dëgg xani an lakum aryaafu seeqiya innakum xalaltum maa ngi ndokkeel lakum yéen ñan ngay ndokkeel aryaafu seeqi gani sama sëriñ bi sama gani sëriñ ah, mu ne kon nag maa ngi leen di yokkal innakum ne yéen xalal tuwaa ci ngeen bi daari forsi ci kër ak texe min ay so yas abu foo xamante ni ah yaa dafa xaw a ñu ngi koy seetlu maanaam buñ naa saxabal amro mun a farako maanaam fu ñu koy tisaare fu ñuy seetle yas abu fu ñuy seetlee texe kër ga ñuy seetlee texe yéen ci kër gu ngeen di kër aqimoo kiraaman tayyibina bi daarikum kaanikumoo alxusna lakum mutaraqabu aqimoo sax leen kiraaman ngeen tedd tayibiina ngeen teey toog leen bi daarakum seen kër tamit kër Cheikh Ibrahima toog leen kër gi seen kër nekk leen kaanikum comme seen itte alxusna seen yi rafet nekk leen na ngeen ko nekkee lakum am ngeen murtaqab koo xamante ni li ngeen di xaarandeku ku ne la muy ci kër gi dina ko ci jot wala tum bi aryaatin bal an mudifukum loo antumul ahbaabu wa huwa abu wala su nekk leen yéen gan yi bi aryaatin di ay gan bal ana mudifukum naka xam moo leen di gënale loo antum yéen albaab ahbaabu soppe ngeen loo yéen ko yéen ay soppe ngeen yéen du ngeen gan ay soppe ngeen ki nga xam ne ngeen gan si woowu moom kenn deres abun bàyyi làkkum ñu leen mooy seen bàyyi kii bàyyi la ñu nekk leen nekk leen seen kër bàyyi ngeen nekk leen salaamun alayhi daiman wa alaykum wasala alal muxtaari man la yuqayim salaama salaamu alayhi yàlla ci nga xamante ne mu ngeen dane si daa yéen faaw aleykum ak yéen wasala yàlla julli moom laaw alal muxtaar maxtaar man mooy koo xamante ne laa yuqayim du fekk mukk yàlla na ko yàlla defal salaatu ak salaam amiin yaa rabbal aalamiin wa qaala aydan yuqaatil cheikh radiyallaahu anhu ma ngay jox xarbante kàddu ak bàyyi mm-hmm. ah dégg nga wa wafdu abi isaaqa wa huwa aliyati wa shukru ma alihi al isaani jalilati wa wafdu abi isaaq jokkoog abi isaaq wa ma aliyati maa ngi koy sama ngiñ billaahi maa ngi koy génn ci sama jokkale ak bàyyi wa sikkur ma àll yi tudd ay caractère al isam yaa xam ne mooy màgg ak jëli yaa xam ne tudd ay maalim yooyu mooy sama ngi ñu kañ la anta aba ishaqa kafi wa ma ili wa anta muradi fi udori wa qaybati la anta yow baay aba ishaq yaay baay ishaq de kafi yaay sama kunt yow laa laax tënk suma wo mawqidi yaay sama dëgër la waay wa antew abi islam muraad yaay sama nameel fu udóor yi bu ma teewee waqay ba te ama fàddoo yow tam yaay sama muraad am beneen muraad moo tax tawhidu muraad dafa war a am bi maanaa na nga amee tawhidu muraad ndaxte muraad dëgg dëgg dëgg mooy xalifa bi nga xam mooy xalifa sofiyan moom moo ko wax de taraani muraadan laa muridan man muraad laa duma murid wa inna nii liyal mulku wa tasrifu bil mutahawaa man muraad laa yow mii nag boo dikkee itam ndee dikkee ci muraad bi bul amati beneen muraad bu moom benn muraad benn muraad nga am su ko defee nga am benn yàlla am benn rasool am benn waliyu ah ma am benn muraad moom kii mooy muraad ndaxte lu tax ñu dëkk muraad ñoom borom nameel yëpp seen nameel yi kii lañ ko jox moo jàll leen ko reer leen leen ana laahu la bëggoon rek la ko rek xam xam yàlla koo xam la bëggoon koo xam ne du moom ah wala wii setaayam moom la bëgg wan koo wan setaayu yàlla koo ne bi du moom nii ah xilaaf bii jëfin duñ gërënt moom la bëgg a xam jëfin moom la bëggoon koo xam ne koo xam ne mulki kii kon mooy muraad kon taraani man muraad laa waaye laa murid man dañ may namal namu ma keneen ah wa inni liyal mulku wa tasrif man maa moom mulku bi ak tasrif bi ci Moustapha ma ma kon nag li wax dëgg la ah dégg ah, ah, basti ah wan tawat wal asfaaqi fii ka yu ba bi bastika kon ci sa bi bastika sa bëst mooy sa firéeku naw yi sama côté ci la nekk alwaslu jokkoo basti sama firéeku ci laa ko amee man yow su firéeku jëm sama côté ci laa amee jokkoo ci laa mën a firéeku wan tawat leemu na xaaral bi ci mbëggeel wala asaax ak cawel fii ko cëw sama leem leemu sama mbëggeel ak sama cofeel léemu na ci yow itam léem goo xam ne ci te bii rek la nekk ci yow lay daw ah wa ineen bi xëy lii bi siwaaka ah, tala tufan tala tala futan fa sikru sajaaka san yetu mu yeti wa ineen yi bu jubloo xëy lii kun man tala mu geesu bi di kas ku ku yéenee geesu kurut man maanaam kurun ah, man bu bëgg geesu keneen kurut yow kurun man su bëgg geesu kurut yow xëyri siwaaka talatu fan wa in yéen wi xëyri talatu fan fii siwaaka keneen kurun man bu bëgg geesoo keneen man de fa sikur sa jaayaaka fàttaliku say jikko ak seen yetu yoo xam ne mooy yëkkatiku sa jikko yëkkati nit nit yi mooy sama yéene man Ibrahima man man man Mouhamad Abdullah keneen bu jubloo keneen man de jiwul ma kenn yow laa jëm wama liya sabrun an soodika fasma an wa in wa in qaranat wa in qaranat umniyati umniyati bi maniyati dégg <laughs> nga de wama liya amu man Mahamad Abdullah sabrun benn muñ xan soodika ba duma ma gis man ñàkk laa gis kon nag man maa muñ ñàkk toog gisuma la soo fi du daf toog di la ko rek moom laa moom moom laa moom laa waaye ñàkk gisuma la mën a muñ déedéet kon nag fas naan na nga may na nga tale ci man wa in xaar na même dañoo dendale lëkkale um ni sama mébét bi ma nit ak sama dee sama mébét bi ma même boo ànd ak dee mooy lan gis la bu dee damay dee ci lay dëkkee ci lay dëkk di jëme yow naa dee ndax ma di la gis bu dee man li ma mébét dama ànd ak dama dee mooy li ma bëggal mooy man di la jono yow bekk dàq su la jono yow dàq balaa ma ko am damaa dee naa dee léegi pour nag suma jono gi ak yow mën a continuer ma dàqar la dégg nga wa insada li tayaati man nu ma tiyatin ma tiyatin oobaka xas ah, xaswa tayati wa ma tiyati wa insada bu takkee li tiyaati man ni ma tiyati ci léem-léemu ay buumi sama waruwaay ya sama warwaay ya buñ takkee ay leem-leemi ay takkuwaay yow de foofu bokka sa bëggeel xusuwaa tëyyët yi mooy tayoob sama leem woo ma téyati mooy sama warwaay moom yow sa jublu la ah yow sa mbëggeel mooy càkkute mooy la gën a sori ci sama leem-leem ak sama sama càkkute mooy yow rek waman saa la si arjo jadaahu wa antani mumiidu waxaa madatu madatu ilayka yudayati wa man saalisi ana kan mooy ko xamante arjo dina yaakaar jadaaw mayam ana kan lay yaakaar man ay mayam ku xool kan ana ku fi mën a taxaw ku ma yaakaar may wa man saalisi arjo lay yaakaar jadaaw mayam amul bi maanaa loolu amul maa yaakaar keneen wa anta yow lii mumiidu yaay tëbbkat bi waxaa yëgal man madatu tàllal naa ileeka jëm ci yuddee ci sama loxo si sama loxo ana kan laa koy tàllal yow Cheikh Ibrahim tàllal naa ko <laughs> ay waay am leen waay jox naa la ko du ma ko tàllal képp ana ko ma koy tàllal ndax garaaw yaay joxe kat bi te amul weerante xam naa ne yow yekk yaay joxe du ma tàllal sama jox tam kon nag mi ngi nii waman sàlla si ak saabo yow man anta lii malaasun wa in saman sawaaqiya dukkati dégg nga ah kon ah waman sàll si ana kan mooy koo xam ne ak saaxu dinaa ko ragal yomal benn bés wa an te fekkew lii malaasun yaay wéeruwaay yow yaay sunu wéeruwaay man ba nga nekk saw rek kan laa war a ragalante déedéet wa in suma su fekkente ni dañoo màndargaal sawaaqiya li nga xamante ni sama mbëggeel gi dañ koo màndalee doj yi dukkat dafa tëj man mbëggeel gi ma la bëggal fi ñu ko màndal fi ko tegoon ci doj doj day doj ni ma mel ci mbëggeel fi ñu ko melal doj mbëggeel gi kon dukkat dafay tëj waman saala si ahwa walaahu wala wilaahu wa antali wali wa minkaal awliyaawu tarawati wa man saalisi ana man ana kan mooy koo xamante ni lay bëgg yu laa oo méngoog moom méngoog moom kan moo bëgg man ma dikk méngoog yow far yow wa ant yow lii wala yii yaay ci waliyu wa ka ci ba wa min ka ci yow tarawat lay mandee al awliya aliyaayu bu ñuy naan seen naan ñu ko jële ci yow mm-hmm. waaw man nag koo xam ne waliyu moom lañ ci moom lañu jëlee man daa dem ci waliyu day dem ci keneen mm-hmm. ci yow mii lay dikk kan lay bëgg koo xam ne da bëgg keneen kon nag wa min ka tarawat al awliya wala yëpp ci yow la ñu mën wa man sàll si ab xaa ridaahu wa antali murajaare daal asma mumidul musabitu wa man sàll si ana kan mooy koo xamante ab xii dinaa sàkku ridaahu ngërëmam kan lay toppatoo ji ku may gërëm bëgg ci ma gërëm wa anta yow murajaa yaay yaatal yéen ma arida ngërëm ci yow laa yaatal ngërëm al asma ngërëm lu yëkkate ko al mumidu yaay tëbbkat bi al musabitu yaay dalalkat bi yaay saxalkat bi yow tëbbkat bi yaay saxalkat bi kon kan lay dem di sàkku ay ngërmaan ci moom li saalik lam am da fa ina nii li ma di siwaaka dara lam al lam at lattaf ah, man de dama la wax bi ma demee ba xam a xam li ma xam li saalika ndax li ma xam la lam am ndax tagg si waat yow Mahamad Abdullah ma ngay tagg keneen doo ko dégg fa inna nii naka man Mahamad Abdullah ah, li ma ci li ma ci si waat bi maanaam lam altafit du geesu li ma ci si waat tagg ku yow addaana fépp addinaa ngi daw du ma geesu ne maa ngay tagg kenn kenn kenn ku yow Cheikh Ibrahima ah loolu day laa gëm man malak yedd tublaa wa kulla karimati mel ma ji asran nahwa a eddka sufat malakta moom nga yow Cheikh Ibrahima al yedd loxo atuula bi nga xam ne mooy loxo bi gën a ci loxo yaa yore loxo lu koy la wa kulla karimatin ak lépp luy tiraange minel ma ji tiraange léegi nag léegi nag xaasiran kii de ab jànq la lii ab jànq la boo xam ne sufat dañ ko waajal na wa addika ci sa war awàllu ëtt bi lii def jànq ab ndax sa xel dafay jur ab jànq ni ko nit di juree bikkuru ni la sukkuru di juree bikkuru léegi nag kii nag jànku xalaat la boo xam ne jànq la góor mësu koo gis waajal naa ko indi ko sa ëtt bi wa qad fuxta isaanan wa ilman wa ifatan wa inaka masfa kulli sirin wa ikmat wa qad fuxta sut la yow ibrahim Cheikh ibrahim lan ci sut insaan ak rafet yaa sut ñëpp ci rafetal waaye nag xam-xam yaa ci sut ñëpp wa ifatan fegu yaa ci sut yëpp wa inaka yow Cheikh ibrahim maswa kulli sirin yaay saxee kaay bépp secret woo hikma ak lépp lu hikma luy siroog hikma yaay yow yaay seen saxuwaay yow yaay saxuwaayu asraar yi ak hikma ka faydika faadal baaro wasattu daxwatan li kaw ni sanaaxa mi du xalika xamat ah li ma ci bëgg a wax su fekkee ni xamuloo ko ka faydika comme su faydi faada waam na albaxara géej woo sam su nekk jant bi daa waxtaan ni ci digg bëccëg ba ba sa sa di bi dafa waam ci digg bëccëg ni jant bi leerale digg bëccëg ñëpp gis sa faydu bi am ku mu ump faydu bi kon nangu kon nangu waaye bi comme ñett njolloor ka fayda ka faada ah bahara wal fay wal sam si daa waxtaan ah li kaw ni sa naaxaa nekk ak leer ak faydu bi mit lu xaj yi ka comme sa jub gi xamati dafa mat yow sa yow sa sa sa leer gi dafa matale loolu tax kon nag jant na mu wëree àdduna bi benn jant nañ am faydu bi mooy faydu boo xam ne moo dikki de jant ba lay wane jant bi ni mu nekkee benn jant de wane fépp kon nag sa faydu bi moo dikki de wane xam nga faydu bi mu dikkee ci lañ xamee kuy laaw ci lañ xamee xam koy rasul xaq bi ci lañ xamee kuy rasul laay bi ci lañ xamee kuy waliyu laahi bi ci kuy xalifa ab laahu bi ci lañ xamee kon nag kii nag faydu bi mooy matale moo tax mu naa hunaalika amal faydu la saqalantrasoi arafin bi lay boo dee fii fi nga mën a am faydu boo xam ne faydu matale ci jël nga ko mën a jëlee faydu bii boo jëlee faydu rek pour fii dafay manqué waaye faydu bii ndax lu tax faydu bu nekk dafa am frontière ña xamoon laaw frontière ba dikkee frontière yàlla gën ko duñ xam ba dikkee ba mu jàll dem ci frontière rason bi ku dikk ci biir euh, tërësën doo xamati ba mu jàllee frontière bi dikk frontière wilaaya bi ku dikku ci wilaay doo ko xam ba mu dikkee xalaat ko xoolal ci xalaat bi doo ko xam ba mu dikkee daa in foofu nag bi ñu wax léegi ah foofu nag lañ xamee nag gars yi nag gis nga al ana daa in bii mooy la nëbbu ka nëbbu mooy koo xam ne ku ko wax dee ku ko mos a wax ñoom ñu passé kenn mos a wax ku nekk fooy ah kon nag mi ngi nii <laughs> ah yow mi ngi ne sa jant fu mu nekk la la la jant bii day jàngale kon nag. faydu baa ngi nii dafa moo tax bàyyi ñett mu ne mm-hmm. bañ tiital ci moom mu ne ko sama faydu bii jarul ngeen tiit ci man daana yàllaa ko yor dana ko xaj ci foo xamante ne tijaan yi àgg na fa rek dafa àgg mm-hmm. te tijaan yi foo xamante ne sari àgg na fa tijaan yi àgg na mm-hmm. kon nag ñu ne nekk kon nag comme jant lañ nag kon mais biddiw biddiw xaqiqa ah man ko fen weeru xaqiqa man ko fen waaye jantam xàq na ba mu dikkee moo dikk laabalee biddiw yaa ngi weer yëpp àgg fépp nag yow nag ka fa ka faydika faanul baxaru wal samtu daxwatu li kaw ni sanaha min du xajika am na tuma tax bàyyi ne daawtu rabbi an yaxuma xaji kullal wara ñaan naa sama borom bi sama njub gi mattale mbooleem bi def waaye yaa ma doon sari kon nag gis nga faydu bàyyi ku la ko laaj lu mu tudd ne njub ku jubul ne maa ngi ci faydu bu nekk jubu woo ko ci faydu bàyyi faydu bàyyi ku ci nekk da nga jub ah raaytuka a qootan bil qulubi watal atan tufaadu bihal asaaru min kulli shay sey waaye Mouhamad Abdoulaye dëgg dëgg dëgg yàlla Mouhamad Abdoulaye Mouhamad Abdoulaye yàlla ñuy dimbale raaytu ko gis naa la man xóotan yaay dund lil xulóobi ci xol yi yow yaay dund xol yi watal atan yaay fenkeekaay boo xam ne tafaada waan na biha coom al asrar mooy yaay fenkeekaay mbóot yi min kulli wi setin côté boo dem rek ëwwaloog aaxiroog saayiroog baatinu la fay dawe ci ay mbóot yow mii yaay seen tali yaay seen yaay seen fikk kay wax na dëgg de mhm. walilaahi asraarun tatawara hikmatan taadada asmaan waxaa danga wax waa waahidan maa taadat walilaahi yàlla am na asraarun ay su ay siru yàlla am na ay mbóoti mbóot tatawara yoo xam ne dañuy tourné tourné hikmatan ci ay xereñ ak yàlla da ca la ñuy wax nag mbootam yi maa ngay daw ci xereñam yi taaddada dafa limu asmaan nag benn mbóon ma moo am ay tur yu jeex waahidan mooy benn nag maa taaddat limuhul nag limu na ay tur de waaye nag du dafa limu de moo dikk ne fii yës da nga min jaar fii jaar fii jaar fii jaar fii waaye limu de maa la ko wax la ah walilaahi xalfal ismi wala si masar lool saatu fil xëy fil xëy bi tafat wa tawallati xam nga fii mu am ab lay àgg ah e, yi woy nañ ba taay Abdou Qadir daf ko tuddee mësal ko tuddee walaay xat fa im walu walu si walu si su boo demee jaay jaay maa ne mësal lañ ko tuddee waaye déedéet mu ne wallaay laaw am na xat fa ismi ci gannaaw tur walu si ak meloon hmm. te buñ ne ismu mooy diw buñ ne wasu mooy diw lu tax mu nekkee ismu ci ñun la numéro un ci ñun fii numéro un deux un la fii bu demee ci kaw numéro un numéro numéro un numéro un numéro fële deux la fay nekk bu ñu bàyyi ko fii wërsu mooy sifa mooy deux bu ñu ci kaw ismu mooy deux ñu ko de kon nag un mooy deux deux mooy igi ñun bu ñuy dalee ci tur lañu dem dem ci melo waaye waaye kon dañ di gën a ne tur kon nag wallaay xalfal ismi nekk na ci gannaaw turam wala ma si ma sër lahoo saatu firqëy bi bi man a istafat tànn na lahoo ñeel ko ak saat saatu firqëy bi moom la xëy moom la saat tànn ci xëy bu moom boobu la melo wa nekk ci gannaaw tur ak tur wa ak melo am na mësal boo xam ne moom la tànn moom la saat tànn def ko muy saatoom moom istafat lahoo ak saatu firqëy bi moo tax boo demee ñu ne ësali ësal ne saatu saatu booba nag kon moom moom lañ tànn wax naa la kon saatu du yàlla moom lañ tànn na ci xibu def ko mu saat wa tawalati mu wéngale ko nag li nga xamante ne moom bi yëpp lii kenn mas naa wax li lahoo saatu fil xibi istafat wa tawalati yow yaay laaw am na ca gannaaw tur ak melo feeñee koy boo xamante ni saatu moom la tànn ci xëy bu méngale ko ah, kon nag jamaxta mahamid al kirami waxasata ah, waxasat ah, waxasat wuxtama wuxtama ah, waxaw xanhu min olya uli si hisati jamaata dajale nga yow Cheikh Ibrahima maka mahamid al kirami mboolem luy cant ñu te ca cant yu cant ñu tedd yi seen cant ya lu ñuy santee ku tedd yow boole ko wuu sa làq nga maa lépp loo xam ne waxaw làq nañ ko am ci moom mais nag olaay ci kawe lépp lu kawe way kawe lépp lu ñu am ci cant xam nga ko lu ñu am ci kawe xam nga ko aw da li nga xam ne aw laa li nga xamante ni méngalu alxisu ak jafe boo xamante ni xasat dafa jële am nga tiraanga joo xam ne bu jëfee am nga awla anisa xasat boo xam ne defe naa yaa yor plan bi yoo xam ne defe naa am de lu gaa yi am rek xam ko seetal de lu lu waa butoon am bañ ko amee ba un e amee un e am na un e. ba deux dikkee am deux am na deux ba trois dikkee am trois am na trois ba quatre dikkee am na trois am na am na am na kon kon nag lu gaa yi am am ko ko am nañ amul nag ñoom ñëpp nag ndax bañ dikkee passé yu cinq ñoom kenn amul sa cinq yow yaa am cinq nag <laughs> ah kon <laughs> ah <laughs> bañ dikkee ñoom un un deux deux trois trois quatre quatre bañ kenn amu ca sekk sekk moom kenn rek la kon nag fii daa im kenn amu ko yaa ko am ah dégg nga tanaat ilaykal mukaramaatu wa inama birayika fi haal asiyaawu taxallati day tanu nag ilayka ci yow al mukaramaat tiraange yi tiraange yi yëpp bañ dikkee ci yow ndax si teraanga ñett ñeenti teraanga rek la yaa ngi ko amee teraanga Europe ak Saïd ba bañ dikkee nag a teraanga yi coono xamee nga boole teraanga yi teddee ko wa innama birayika nekkul sa xalaat fee ak al asfiyaawu taxalit mboolem mooy sell yi sa xalaat lañ takkaayoo mboolem yu sell yi ñoom kuñ takkaayoo wa innama rayuka say xalaat fii xaaju as asfiyaawu taxallat lañ taqaayoo boolem ñi paas woon say say xalaat lañ say say xalaat yu sell lañ taqaayoo te tam moom moo doon xel ku dikk moo la xelal moom ku dikk bëgg a doxal moo la xelal na ngay doxalee moom mii nii moom mii nii al asfiyaawu taxallat waxaat dégg nga waxaata siral kaw ni xidman wanam sal min al hadi wal misaaqi tujna bi këfrat waxaaxaat te yow yaa faslante accord siral kaw ni kee xam ne mooy secret kaw bi man ca xaq ca xaqiqa siral kaw ni yaa yaa ci accord ak moom xam nga siral kaw ni mooy numéro deux moom mii nag moo siyaante accord ak moom xit man ndaxte moom moo di ko numéro kenn kenn nekkul bañ ne un deux trois kenn nekkul numéro trois yaa faslante moom ci siral mooy siral kaw ni ndaxte dëgg-dëgg yàlla ko xam siru kaw ni xam nga ne mooy wilaayatu wilaaya ne mooy wilaayatu bi nga xam ne mooy wilaayatu xosma wala kubra walam tasal jógoo yow min alhaadi wóolëre ga wal ak pasto ga tëj nii yaa nga witt bi kattan yaa nga witt rek yow yaa la nga fatlaantoon ca wóolëre ga ak pasto ga yaa ngay witt di gën a ndaxte bànqaas la yoo xam ne gaar boo xam ne gën a nekk fasini yaa xuban ina xubaka say siinati hmm. wasikuraka aqwaati wa man fukka sullati doon ne man Muhammad Abdoulaye hmm. dolli ma xuban mbëggeel ina xubaka naka sa mbëggeel yow bàyyi siinati mooy sama taar man Muhammad Abdoulaye hmm. wasikuraka sa tudd aqwaati mooy sama xoo sama tudd wa man sa tagg sulfati mooy sama jege bu ma bëgg a jege man say tagg laa lay jege وقوى رجائي أنني متمسك بعروتك الوثقى وفهمك وغيرك وقوى دغرنا رجائي سما يقار ñi ne ko maam Abdoulaye ñu dëgër si yaakaar mu ne am nañ nakaan mutamassikun ko jàppalaa te xorwatul wuskaa xorwat xorwat ka sa buum ko dëgër xam nga xablullaay waxoon naa la ko ak xorwatul wuskaa xablullaay hmm. mooy kan xam nga ni mooy diw sàngam xam nga orthodoxe ka mooy buum gi xam ne ñetti buum lañ dajalee moom ñu yëkkatee gaalin moom maa ngi ko doon tuddee góor mar ñaande man na maa ngi jàpp ci xorootikal wuska wa foomu ka sa dégg-dégg boo ko jëtti man sa dégg-dégg lay sàkku man bi almika jahli qad azaltu wa zullati bi sika astajika fi kulli nusr bi almika sa xam-xam xat asaltu laa dindee jëri sama réer sa xam-xam bi laa dindee sama réer wasula ci sama troxti staj di ka maa ngi lay sàkku nga jëri ma ci bii sa ka sa tràgg bi ci kulli naslatin bépp wàccuwaay rek wàccuwaay bu nekk rek sa xam-xam laa fay demee sa tiraanga laa fay teddee salaatul ala muxtaari ma nektu mat la bii wa ma tasatil ak afkaaro fii ka wa daraj salaatul salaatul ala muxtaar yam la wax ci muxtaar maa niltu fépp am naa mat la bi sama càkkute moo tax dama leen wax maxtaar maxtaar bi ah wa maa intasat fi jaay jaay yu al abtaar xalaat yi fikir wa dal féeg xalaat yaa ngi jaayu ci yow te doo jox ci yow rek yàlla nag salaatu salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh